ñu ngi Ousmane Sonko ñu ngi lay nuyu di la wax ne yéegi askan wi ñi nga xam ne yaa ko sosoon ni ngi nii yéegi askan wi xalum ndeef la dafay sëgg waane du fay liñ fi wax sànq biñ fi commencé def point de presse ba léegi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 police sapeur pompier lépp ñu ne ko yow lañ ko jox yemuñ foofu ñu ne xanaa waaw bon war naa soxla ay koppar la ñu ne waaw dëgg la na am luñ ko fàggul ñu ne lool lu muy toll ci jamono jii Macky Sall yi moo fi nekk ñu ne nañ def at mu jot ñu fàggal ko juróom-ñetti milliards ah juróom-ñetti milliards ne waaw ñu ne ah juróom ñetti milliards yooyu ndax ndax dañ koy saytu ñu ne déedéet moom moo ko moom da ko neex mu ko mu may dafay jox ko officier soldat boo xam ne moo koy togg ki nga xam ne sax moo koy toggal danañ ko ko jox ñun daal lenn rek lañ ko sant sant mooy charte bi nga xam ne ñoo ko bokk muy constitution nañu ko téye ah loolu de rafet na bu baax mais ñu ne ko ci charte boobu nag yow boo demee ba nga xam ne bii bëgg nga ko andi ay soppi may ne la sàng koo soppi yow yaa xam ne yaa ndaw ndaw réew député yi mais boo ko bëggee soppi ñaari ñaari yoon rek nga mooy soit na nga ñëwaat ñun askan wi la faloon moom la ñuy wax référendum boo ko mënul na nga jaar ca ndaw député yi nga xam ne ñoo leen fal pour wax leen li nga bëgg a soppi laal la bu ci ñooñu àndee rek ñun ànd nañ ci waane waane am na loo xam ne lii ci charte bi constitution yow mi nga xam ne lañ defal teraanga yi yëpp ak ndaw yi nga xam ne ñoom lañu fal kenn mënu koo laal dañ koo dugal ci coffre-fort wax nañ ko sànq samp ko rokkos ko tëj ko jël caabi yi damm ko sànni ko boo jëlee constitution Sénégal mi ngi nii fukki article ak ñett la te li ma leen wax moom mooy article bi nga xam ne moo ci mucc ñu ne ko li nga xam ne mooy république maanaam Sénégal kenn du ko donn buur amatu bi kooku kenn mënu koo laal ñu ko ak ban ñu ne li nga xam ne moom la ñuy falee tam réew mi maanaam président de la république majorité moo ko war a fale et ñu ne loolu moom allah kulli aar ba dunay tukki tant que constitution mi ngi fii kenn mënu koo laal ñu ne bu ci topp ñu ne ko waxtu wi nga xam ne moom nga war a toog ci réew mi yow président de la république muy juróomi at lañ la may mën nga koo relever juróomi at yooyu kenn mënatu koo soppi tëj nañ ko sànni nañu ñeenteel bi ñu ne ko képp koo xam ne kii dañ fay bëgg a toog ñaari mandat rek nga mën ku am bu nekk juróomi at ni ñuy toppante kenn mënatu koo soppi ala kuliya ñu dem ba ci biir nag mu moom Macky sàll comme am na benn tailleuram boo xam ne bii moo koy ñawal koor ci distion réew mi xaw a jaxasoo ci moom mu Ismaïla Madior ñu xool lan la def pour que li nga xam ne tëj nañ ko sànni caabi ja damm ko sànni ko ban borom dox la jaar ba mën koo moytu Ismaïla nga xam ne moom loolu mooy métier ne ko président nañu sàcc waay mu ne ko sàcc mu ne ko waaw mu ne ko ah yow dafa si ñaw na adduna yëpp a ngay dégg wax ma ni ñu koy sàccee Ismaïla mu ne ko dañuy wut rek benn pièce boo xam ne xaw naa niroog moom dem ko daax ko ci article 31 buñ ko ci dugalee ñi nga xam ne ñooy euh, waa wallu ñi ngi waa walloo ngi woote wallu xat si jéem leen ñëwaloo rek jaxasoo ci biir yóbbu ko ca ndaw ya te comme dañ ne majorité mooy mooy moo koy wote bu ñu ko defee la yaakaar nañ ne président dina mën a jàll parce que constitution bi comme yow sa mandat ci ñaari fan mois avril la war a jeex constitution moo ko wax bu ñu ko defee danañ ko mën a randal tuuti yóbbu ko ba ay weeru décembre daal Mbacké ne ko ah waaw comme noonu la kon nag nañ essayé ñu yóbbu ko conseil con ñu yóbbu ko assemblée nationale. bi ñu demee nag ah suñu député xam ne jàmbaar lañ topp leen wuu sàccee wuu sàccee wuu sàccee amuñ fu ñuy jaar ñu comme nag ñoom joxoon nañ ko kaaraange bi ah ministre am bi yore force d'armée na ko xaaral ma indi la may la doole. dal yéen de gendarme yi teg lu kenn mosul gis ñoom Ayiba Biram Touré yeeg tout ça allez dehors eh amu leen fi place daal ne waa Wallu ñu doon woote Wallu Wallu nañ leen ci député Wallu nañ leen ci kaaraanga dem leen wote loolu moo indi coow li mais askan wi bayewu leen askan wi di topp leen di leen yuuxu bañ leen yuuxu ba ñu sonn nag comme ñoo yore kaaraange ñu walbatiku ña leen doon yuuxu ñu rey ci ñetti xale étudiant élève ndar Ziguinchor et cetera ñu ngi jàll seen mbokk muy lu doy waar te bis bu ñu manifester rek noonu ñu doxalee ñun. léegi nag suñ député yi ne waaw comme noonu la ñoom sàcc lañu ah. te ba ñuy tëgg constitution bi tamit ba nga xamee wax nañ ki nga xam ne moo ko war a garder te garder wu ko bu baax mais am na lu ñu feg woon mooy ki nga xam ne moo ñu war a atte bu ñu am bu amee différence yu ñu diggante ñu ne ko kan la ñu ne conseil constitutionnel te député yi ñoom la yoon may ñu mën a dem euh, clamé ci conseil constitutionnel ñoom Ayib Daffé ñoom Birame Souleye ñoom Abass muy waa Yewwi Askan muy waa Yewwi Askan bi ñu dem yóbbu ko conseil constitutionnel. léegi ñu ngi toog di xaar parce que li ñu wax ci constitution bi li ma leen wax léegi ci article bi ak yeneen dañu ne conseil constitutionnel rek fii ñu toll moom moo mën a dax élection président de la république mënu koo dàq te conseil constitutionnel boobu wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoom li ci gën a garaaw ñu tuumal leen am ñaar ñoo xam ne dañ leen tuumal te ñu leen tuumal Macky ak ay ñoom ñoom génnuñu ci ak Amadou Ba ñu ne am na ñaar ñoo xam ne ñu ngi ci biir dañ leen a ger man mënu maa gëm loolu parce que ñaar ñooñu am na lu ma xam ci ñoom Abdou nu mu tudd Cheikh Tidiane Coulibaly du magistrat bu ñuy manipuler moo ma ko wax xaw ma ko rek Latif xam naa ko mooy rakkam ñoo bokkoon di jàng droit Cheikh Ndiaye maa moom a bokkoon di jàng classe lycée Faidherbe on a fait la terminale ensemble il faisait partie des meilleurs élèves du lycée je le connais kon ñooñu mën naa xaw a seede ci ñoom tuuti mënumaa gëm dañ leen a korom te ñoom def nañ leen lu ñaaw lu mel noonu tey nit dëgg lañu bëgg a humilier magistrature bi bëgg a ay juge te fii ñu toll nag avenir du Sénégal jàmmam mi ngi ci loxo conseil constitutionnel magistrats yëpp d'accord nañu ne leen vous êtes en face de votre responsabilité historique dëgg gi rek lañ leen laaj te yéen yéen a fi waxoon bi Macky Sall waree àdduna yëpp ne day. wàññi mandaam juróom-ñaari at yóbbu ko juróomi at yéen yéen ne woon loolu mënul am mënu koo wàññi ku mënul wàññi kay xanaa mënoo yokk te loi bi nga xam ne moom la ñu ñëw di leen ñun ñi nga xam ne ñoo yeewi askan wi dafay yokk mandat président Macky Sall te comme waxoon ngeen lii ca jamono jooju yaakaar nañ ne da ngeen mën a wax lu méngoog moom ci jamono jii ba Sénégal nekk ci jàmm parce ñun. bëgguñ lenn lu may stabilité ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ñu commencé élection yi buñ ak le 2 avril Macky Sall abal loolu nag ab xeex la boo xam ne ñun ñoo ko bokk di ko def waaye yooyu askan mais comme ñun dañoo am aussi responsabilité historique wax ko sànq ñoo Ousmane Sonko ñoo ko tax dox ba liy taxaw bu Sénégal demee ba tollu fii nag ñun wax nañoo solaat suñu dàll wër ñëpp nag lu ñoom Déthié Fall wax dem seeti plateforme yi fi nekk yëpp moo xam F24 la moo xam aar suñu élection moo xam euh, ñeneen la pour que ñu lëkkaloo mën a nekk benn am na loo xam ne nii comme constitution moo boole Sénégal ñu nit am na loo xam ne nii moo ñu mën a boole mooy bañ report élection yi buñ ñu taxawee incha allah yaakaar nañ ne Macky Sall nga xam ne moom la bëgg a def réew mi jaxase ko ñu nekk ci instabilité loolu duñ fa àgg ak dëgg gi nga xam ne conseil constitutionnel dina ko wax. ci communauté internationale wax nañ ko bu dul benn du ñaar ñoom euh, Macky Sall da a yàpp sax danaa ko wax ci tubaab bi pour ñu dégg bu boobu ba léegi ñuy def ay déclaration xaw ma union européenne e wax wax wax wax mais loolu teewul Macky Sall tey jii dëggul internet yéen yéen journalistes yi ñun ñu ngi demandé sanction communauté internationale mais yéen il faut ngeen sanctionner Macky Sall parce que mënuñu dem di woote bitim réew ne sanctionner Macky Sall te sanction bi nga xam ne moo ciy gën a dëgër ñu war a def ci réew mi presse bi moo ko mën a def. yéen it la ñuy appel li ñuy lancé communauté internationale sanctionné Macky Sall ab jël nañu koy sanctionné dañ leen ko wax pour l' du Sénégal pour l' intérêt du Sénégal bu demee le faire la communauté internationale boo demee Niger parce que coup d' état coup d' état rek de Déthié Fall mooy wax ne euh, Macky Sall dañoo def fet dañoo jël fetal Macky Sall jël istilo coup d'état coup d'état rek coup d'état loolu def j'aime bien cette expression monsieur le président Déthié Fall alors comme dafa def coup d'état la te mu def coup d'état ci adduna bi foo mën a nekk ñoom communauté internationale union européenne nations unies les anglo-saxons jeg lay daal mais buñ ko deful boobu ba léegi ñun dañuy jaaxal te observateurs yi yi nga xam ne union européenne la ñu jógee observateur CEDEAO ñu ngi ci réew mi boobu ba léegi ñibbiwuñ waroon nañoo dem sax maa ngi jàng démb ne observateur union européenne nee na dañ fiy toogaat di saytu mais ñoom seeni bët ñuy xool di gis jaxran lañu ñu reyee xale yi ci seeni bët ñuy xool di jaxran la ñu gis ñu jàpp premier ministre euh, Aminata Touré gis ñu jàpp ay député di leen violenté gis assemblée nationale ñu dugal ko gendarmerie ndax opposition bi et cetera gis ñu jàpp ay téeméeri ndaw yoo xam ne defuñ dara dugal leen ci kasu bi am na ñoo xam ne ñu nga ca boobu ba léegi ñuy def déclaration déclaration ñun doy nañ ci déclaration dañoo bëgg ñu àgg fi nga xam ne moom nañu àgg ak réew yi nga xam ne dañuy violer les principes de démocratie ndax ay valeur de société yoo xam ne ñoo ko bokk ce sont des valeurs universelles mais loolu boobu ba léegi amul il faut que ñu toog loolu xalaat ci man daal ci gàttal monsieur le président loolu la moom la nga xam moom laa ci mën a wax di ñaanal yàlla suñu président Cheikh Tidiane Diop dafa xaw a girib nag fan yooyu moom ñëpp a girib moo tax gis leen ko fii yàlla ko yàlla may tawfeex ba beneen yoon jërëjëf jëf président